man. doomi njare njare la. waaw. Macky Sall ñëpp dañ ne ma woon dana la jàpp maa ngi ñëw ci sa tontu li nag ci laa jëm sa laaj bi ñëpp dañ ne ma dana la jàpp. Mm-hmm. man nag ci sama biir xel. waaw ma ne ah Macky am nay mbokk am nay xarit yu xam Kajoor xam Sénégal. Mm-hmm. danañ ko ne kii kat daa bokk ci famille boo xam ne ba tubaab yi ñëwee fii dañ leen fee bàyyi woon. Mm-hmm. ndax ko ngeen masalaal sab siis dana yëngu. bay bour yi nekké fi do ma sa dégg histoire ben bour ci réew mi bu dugg njare lu nga dugg ñaan lu gennat mm-hmm. waaye japp na fa jaam ak japp na fa léeg teg naa len impôt doon nañ ko fay musta am ci afrique bi histoire sénégal amé ak tayit mësoo gis yow sa ñu né tribunal bé am ñara ñara lañ fay atté tej nañ ko mm-hmm. man jappon na ne am nay xarit am na mag ñu xam sénégal du malal mm-hmm. sa way ñew ñëw dugg sama kër fekk ma fa jappuma yobuma dimanche la kat lama japp lendi ca ya yalla xir ko ci mu ne dem Touba waxtani ak señ ba moy hmm. demam gogu nga xamne ne ba tey jii benn sénégalais xamul dum fa doon wut hmm. waaw kenn xamu ko moom may sa sele njaay ànd dem fa mok señ bi mom hmm. ma ngi doon xaar mu wax sénégalais lam waxtan ak señ muntaha ndax dem na fa wax nak señ bi xana waaw lum wax bis bobu heure même heure ñing ma tek central di ma même heure suñ Muntaxa ak Macky Sall la ngi toog waxtaan nañ ci troisième mandat ba mu fa génnee décision bu mën a jël jataay boobu ko andi na ko wax nit ñi. Hmm. oui loolu moom maa leen ko wax fii te du ko weddi te bis dina ñëw jamono dina ñëw du neexal du neex a dëggal nag ndax ña ko fekkee bëriwul. te moom ba mu ko fekkee ba mu génnee dana moom. waaw maa waxoon damay tàmm sama kàddu non non c'est loolu du noonu. Hmm. yow da ngay sàmm sa kàddu. nit ñaar rek ko xam. Hmm. koo assumé ne kii sama xarit la. tey ànd ak moom. baa muy sa jabar. lu la nit ñi réere réere ñaar ñooñu xam nañ la. Hmm. yow gisoo Marème Faye Sall toog ca Grand Théâtre ñi investir Macky sàll pour mu def troisième mandat. Hmm. gisoo ko fa. xanaa moom xamul woon ne jëkkëram daa pare sàmm kàddoom. xamu ko woon wala da doon yàq xaalis wala da doon yàq temps <laughs> xamoon na ne jëkkëram fas yu yéenee sàmm kàddu gi. Farba Ngom ñaata meeting la organisé pour ñu samp Macky Sall mu def troisième mandat xanaa bu la ñëpp réeree xarit boo assumé dina la réeré wu la. xam na ko. ay Aïssata Tall Sall ba mu demee euh, ca CEDEAO ñu ne ko nañ wote réew yi kenn du def troisième mandat lu tax mu bañ. waaw mu bañ. c'est parce que ki ko yónni da koo bëgg. mag yi defoon nay leet naam ba teg lépp ba far fal far ba ne ko yaayoor mobilisation beeg lépp affaire ba yàqu. Mm-hmm. gis nga nag wa barke Serigne Touba Macky Sall boo ma laalul woon. Mm-hmm. mënoon ngaa rawale moom ba nekkub candidat moom xaw ma nag sénégalais yi la wateel wala duñ la wateel. Mm-hmm. waaye man boo ñëwee sama kër jàpp ma balaa def quarante huit sa nguur day daanu te ta seetal nag ñama ma jël si woon commissaire ya ma jël si woon. xaw ma fu gën a baax lañ dem xaw ma fu gën a bon waaye fañ nekkoon ba ñu toogoon moom yëngu na jóg nañ. ñoom ñëpp demal seet ko tëngéej laa koy tàmbalee. jaaral fépp. ba ci Antoine ma jitalon gendarme yi ya ma jël ci won mhm. sees ba yanguna dembu de. Mhm. ismaila ma nekkon ci sistis ba yor yor bagage yi di dëgëral ak a mhm. sis siis ba yanguna dembu de. amul ku ci dulu du lu ma leen wér du lu ma leen xas du reen waaye samay maam man nak lu waay bagn bañ nag xanaa nangu nem njare njare la nak waw loloy affaire bi ma la jox exclusivité bobu legui nak mbettel momu nak mu am. waaw ci jàppoon ne mooy doon candidat waaj ko ba jekk far mbir ma ne këlëb yàqu ndax ba mu jógee tuubaat ñëw ndakaaru daa am ñu ne ko mukk dóoral rek mu daanu bu nangu mooy borom musóor yi nga gis ba mu ne defuma ñu mer waaw ñooña dañ ko ne woon mbëkkal jàll gis naa nag ku naan ay bëgg kook li bëgg na ko ba dee te ñëpp xam nañ ko bi mu ne Macky Sall bi mu ne aw defu bi mu ne defuma troisième mandat dafa bett sénégalais yi mm. mais def gi moom bettu doon kenn def gi dama koy def bettu du woon kenn hmm. ñàkk def gi kay moo nekk surprise te moom na wax ne xanaa yow léegi man du ma ne lii la ko sëñ bi wax ak laa la wax du ma ko wax waaye wóor na ma ne moom jataay booba fa la mbirum troisième mandat ma yàqoo moom léegi nag damaa bëgg jox leen ay ay ay fee ngeen seetlu ko ñu bokk ko analyser comme ni ma daan def rek du ma nen sëñ bi nee ko lii Macky nee na ko lii duma ko wax hmm. parce loolu du sama war a war waye yeen nan ngeen meuna nango dugu Macky Sall duggu Touba tok ak señ bi jek jek nako dewen kenen keneen ñew te jotu ñoo waxtaan ci dara ci lu jëm ci 3e mandat xana nako ne ah señ bi kat comme man dama yoron ki bi 3e mandat bi sax nangam nangam waye man damay bayyi li tax may bayyi sama cadeau da ko ne rek dewen kenen dina ñew parce que nak bayyi nako lu ko señ bi tontu. ah yow kat fi ngay jëmay dàq di ko defal boo demee fi ngay jëm boo demee eh, doo torox <laughs> fu gën a baax fi nga jëm lañ jëm da ngay xam ne lii waxtaanu continuité la. waxtaanu kii la quoi continuité la. Hmm. maanaam loolu la mu wax Touba la tax mu ñëwaat Touba rek na sëñ bi waaw léegi daal kon moom mbir yi far naa ko teg ci suuf damay dem ndax. ah da non waxuma waxuma wax nañ ko dama ne la déglul bu baax. boo xam boo xamee ay wax di nga xam ne ñaar ñii maanaam fi Macky Sall tàmbaleeg sëñ bi ci mbirum tàggatoo gi. Hmm. ak lu tax mu dem Touba di tàggoo. ak lu tax fa mu tàmbalee tàggatoo ga ngay xam ne am na wax ju ko jiitu. Hmm. loolu la léegi nag troisième mandat bi mu ko bi mu ko jëkk ci rëcc ko ci lu mu foogut daf koo jural nag mu ne léegi day wut ku ko wut.